بسم الله الرحمن الرحيم عن صفوان بن سليم رحمه الله أنه قال jëlee nañ ci suñ sang safwaan doomi suleym yal na yàlla yërëm ko mu ne qiila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama dañoo wax mawlaana rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ni ko ayakunu almuuminu jabaanan ndax ku gëm yàlla dana doonub tappet fa qaala naam mu ne waaw fa qiila lahu ayakunu almuuminu ndax ku gëm yàlla dana doon ku nay fa qaala naam mu ne waawaw fa qiila lahu a yakunu almuuminu kadaaban ñu ne ko ndax ku gëm yàlla dana doonub fenkat qaala la mu ne déedéet rawaahu al imaamu malikun imaam malik moo solo hadis ji fi lmuwatta hadis ji min marasili safwaan ni ko ibnu abdul barri waxee ci tamhid waaye mu ne hadis ju rafet la nay ak tappet li ñuy bon bon yenentu nee na dana dal jullit sallallahu alayhi wa te du tere mu doon jullit waaye fen yonentu nee du doon mukk jukkoy jullit wax na ci hadisu abu umamata radiallahu anhu ne yutbacu almuminu ala alxilaali kulliha illa alxiyaanata walkadiba jikko yu jikko yu yëpp jikko ju ne mën naa nekk ci jullit moo xam muy ju baax moo xam muy ju bon ba des wuruj ak fen yooyu moom duñ nekk jikko jullit mukk xam nga ne jubnu ak buxlu bokk na ci jikko yiñ ŋàññi ba yonentu daa ci muslu waaye du tere nag mu nekk mu nekk ci nit ba pare kooka dib jullit dégg naa ñu ne ku nay du demal jën waaye loolu du dëgg nay gaa baaxut nay gi tere demal jën mooy nay gi génne nit ci diine mooy nay gi lay tere joxe sa farata ki asaka ak yu mel noonu mu ngi mel ni tayal gi génne nit ci diine mooy tayal gi yóbbu nit safara ki tayal ba bañ ne du jox yàlla xaqi julli gi mu ko war a defal mbaa mu far ko teggal ko boppam yal nañu yàlla musal ci nay musal ñu ci tappet musal ñu ci xuruj musal ñu ci fen yal nañu yàlla may yàlla yaaram sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama amin